yalla yàlla meun kat nan yalla na yalla kat nan yalla na yalla agali sen mbébét ak sen ay yene bi mbass mi amé ñom duñu taxaw seetlu ni ñun naam ñu ngi duggal suñu loxo ci gox bi pour mu jëm ci kanam mais ban taxaway lañu wara am pour sensibiliser suñu mag ñi suñu kilifa yi suñu wayjur yi suñu njabot looloo tax ñu def caravane bu mag bi fañu waron waroon sax ca njëlbéen ba tay dem nañu ba weesu ko dugg nañ ci gox yo xamni au début sax bokkuloon ci programme bi loolu yëpp pour yéene bu yaatu bi nga xam ni am nañ ko ci askan wi def dafa naa liggéey bu mucc ayib la ndax que comme que dañuy wax ni transmission bi dafa communautaire la lutte ne peut être que communautaire et ñoom loolu la ñu xam moo tax ñu dugg ci gox bi dugg ci kër yi wax ak mag ñi wax ak ndaw ñi wax ak képp koo nga xam ne war nañu wax ak ñoom pour ñu mat jël matuwaay yi nga xam ne moom la ñoo mën a jël ba feebar bi dellu ginnaaw vraiment c'est une grande satisfaction au nom des populations au nom du maire au nom de tout le monde sant ak ngërëm ñel na leen yàlla na fay leen yalla jappale leen. maire en tant que maire aussi euh, gis nañ ni institution bi nga représenter def ngeen ay initiative yu bëre ci bi Covid bi commencé ba légui tay ji tay lan moy situation bi ci commune Dieuppeul Derklé. la situation parfois bëgguma nekk ci situation personnelle de santé parce que amna xibaar yoo xam boo effet contraire li indi day tiital ñeneen ba jaxase leen li am solo mooy jangoro bi mi ngi fi damay bañ ñuy stigmatiser nan fii laak du fii ki laak du ki lolu mën na yaq lu bari liñu wara japp rek moy jàngoro baangi fi naka lañuy def ba mu jóge fi naka la def ba ñi nga xam dalu leen mu bañ leen dal ñi leen dal ñu war ne leen ñu dem faju ji ba wër lolu moy solo bi def naa ne discours boobu lañ fi joxe sant naa yàlla bi mu ñëwee fekk fi ñoo xamni lolu seen liggéey seen xel ak seen xam-xam match na ci lolu ba joxe nañu le bon message ndax xex bi dafa am noo koy xeexee boo bàyyee yoon wi rek la nga doon xeex xëy na mën na dellu si sa yow moo tax il faut ñu am nu ñuy taxawee ci kàddu gi ak ci taxawaay bi pour bañ a tiital nit ñi waaye artu leen ba taxawaay ba ñu war a am ñu am ko. donc euh, monsieur le maire bu loolu weesoo euh, terrain bu ñu nekk nii ñu ko woowee terrain barak. Mhm. xale yi sopp nañ ko lool. Euh, bëgg nañ tamit mu am yeneen xar kanam est-ce que.

incha projet bi dina judd yalla na yalla matal ndax bu ko defé defee njariñu ñëpp la ñu gox bi yëpp la